pour man musique dafa war am carton jaune carton rouge carton vert am na woy boo xam ne boo ko woyee dañ la war a rouge waratoo génne woy ci Sénégal waaw comme ay yenn bagage bi xale yi loolu la ñuy déglu ci la ñuy jàngee wax mais yow booy jàng wax di jàng na bagage bu dugg boo màggee foo jëm entreprise de parents yi sax ma wax ko dugal benn entreprise boo ñëwee bu ñu la Njaay la sant gardien sax Njaay lay sant ci Sénégal oto boo dugg da ngay gis ñu tax ci photo Sëñ boo waxee borom oto bi mu la bay ci Sëñ Tuubaa mais bu màggal jotee moom ku waroon fay junni pour dem moom ngay fay ko ñaari junni man fay naa dix mille Dakar Tuubaa ci biir lu musul am Youssouf Assis benn waala bu bëgg musique yàlla moo ko def ci moom parce que te damay yëg souvent te képp kuy yëg tam di ngay xalaat xalaat boobu dugal na ma ci sama xalaat yi may yor bon waruma ko tëddaale di ko nelawaale lu ma war a génne la bon ñëpp mën ci jëriñu parce que ku ne loolu ngay ñaan yàlla bon ma ne non naa wëy bu ma wëyee ah, bon nañ ma dégg parce que xalaat yi may xalaat bëgg naa tasaare ko ñëpp jëriñoo ci loolu gën na maa dugal ci artiste de de nature tamit sama don la parce que man maa si ne bon dafa mos a nekk sama xol musique dessin bon lépp luy artiste man bon sama dund la. ban ban musique nga def yow. bon man nag rajo laa def mais mën naa ne damay def musique yëpp parce que man la plupart ay fil ko lañ si laay ay jazz xam nga jazz mais rajo laa joué lu tax mu joué rajo hmm. rajo dafa doon wéy boo xam ne ni bon c'est international rajo deuxièmement rajo dafa calme quoi c'est de la musique qui hmm. bon c'est pas de la musique pour danser pour sauter hmm. bon c'est une bon boo xam ne ne da nga da nga ko war a déglu concentré wu ci jëlee ci njëriñ mag dina ko déglu xale dina ko déglu te yiw na daal moo tax ma ne xaaral ma def télé bu ko defee bon moom laa préféré pour le moment mais mun naa def yeneen musique parce que man bon musique boo ma tegal ma wëy ci ah, ma lax tout mais rajo laa taam. mën nañu xam yan son nga jot a jot a def parce que daal man ni comme am na boo nii ma def mais bon yooyu mun naa ne génne gu ma ko ma ci yoon bi mais bii laa jot a génne. waaw lu dëkk bi laaj laa ko tuddee parce que damay dox di gis lu dëkk bi laaj ma woy ko waaw ku neex waaye dóore waa xam lu neex waaye wax ci waat lii ci sunu réew trottoir bi dafa jaar ba ngay fay la nga boo ci laaj yi nga fay obligé ngeen ci taale bi xale bu ndaw ci maasu cee jàngul daara jàngul école la yàqalee dagg tagire du ma la fiire daa fine du ma assurance dafa jee attestation ci poste ne infraction négociée du ma signature dafa jee du ma carte ndax liggéey dañ ko fi doonu entreprise de terrain plus de secrétaire et beau-frère c'est un ami partenaire parent fii ci Sénégal je dañuy jàng de secrétaire ma parcours ngay mujj doon waaw gis nañu son bu intéressant la son bu intéressant naka la inspiration bi ñëwee bon jamono mi gën a inspiré son bi maa ngi def marchand ambulant bon des fois dama doon xëy Dakar ma xool jafe-jafe yi may def ci kaar yi boo waree jóge Géejawaay dem Dakar dañ lay jàppale trois fois Colobane ñu e ngi njëkkante ñuy lal ci trottoir ma toog ba si yàgg ma ne mais est-ce que nit dina duggee nii parce que lépp lu organisé wul man na ma ba ne ñun suñu njiit bi du muy dem di tukki xanaa di xool ci yeneen réew parce que l' organisation avant tout boo organisé wul tam dara mënul jëm kanam bon mënuma taxaw di wax lu ne dem naan puusal fii doo jaay fii di xuloo fii ma ne naa ko wëy bu ma ko wooyee jaaykat bi sax moom bu tey jii mu ko jëlee ci trottoir bu dégloo wooyee bi dina xam ne ne moom moo nekkul ci yoon ndax trottoir boobu war nañ ci sóoraale sur maxa yi kon soo handicapé yi kon soo de kër la quoi da nga ñaxtu la. waaw dama ñaxtu bi ma koy wéy te tamit dama am lu ma metti tamit parce que dama gis sama frère yoo xam ne ne ñoom ñuy jàng man maay daw jàng ñoo rey seen bopp man gis naa ko xam ne dañ ko bëggoon yóbbu mu tukki mais dana ba jeexal sama tey yàlla def ki ko waroon yóbbu amatul moyen mais fan la mujjee man moo gisee ci ci fast food muy liggéey ak ay diplôme am xoolal non dafa metti quoi parce que étudiant lu mu daj ba am ay diplôme am kooku boo ko jàppaletul waroo jël benn milliard boo xam ne ne papa mooy seere foofu wala liggéeyam moo ko ne ñëw boole naa rek sama doom sama fii ne ko dama toog ki fa waroon toog toogu fa moo tax réew mi du jëm kanam experience yi station yooyu partout dégg ay western ñooñu foofu ñu am xel dëgg-dëgg damuñu mais entreprise de parents yi sax ma wax ko dugal benn entreprise boo ñëwee bu ñu la Ndiaye la sant gardien sax Ndiaye lay sant ci Sénégal mais loolu moo fi am loolu jëmalewul réew kanam yow da xool technicien boo xam ne il a appris tout il connaît tout mu nga war ko fi teg il nga ne non non sama goro la fekk mécanicien engrais la nga ñëw jox ko pour mu gérer benn usine. donc yow kon su ma su ma la waxee. musique bu xaw a dëgër ngay def. waaw muy rajo bu xamante ni. Mhm. day revendiquer. Mhm. day kaas dund. Mhm. li ñu gis ne noonu normal. yow li nga ne wax ci sa musique. moom laay wax dénoncé quoi musique musique bi dénoncé ngay def yow. waaw surtout bi doo fa jaar xam nga euh, bu màggal Touba jotee lu toll ne màggal Touba dañuy yokk paas yi te tey jii oto boo dugg da ngay gis ñu tax ci photo sëñ Tuubaa boo waxee borom oto bi mën a bàyyi ci sëñ Tuubaa mais bu màggal jotee fàtte na sëñ Tuubaa moom ku waroon fay junni pour dem moom ngay fay ko ñaari junni man fay naa dix mille Dakar Tuubaa ci biir lu musul am kon il faut ñuy jàppalante bon il faut ñu changer idée yi il faut mu am ay sanctions tamit parce que gis naa li fa xew jamono yële ñu defoon seen cantine yi di tali teguñu ko ci yoon. என்றால் bu ñëwee di daaneel cantine bi di jaatiloo marchandise loolu proxte la waroon nañ ko teg ay daan muy fay chaque jour cinq moom mooy daw yëkkati cantine am te kenn du ko yàqal cinq yooyu mën nañ ko joxaat ne ko soxla néew doole yi mais pourquoi ñu jënd essence loué ay ndaraan dépensé xaalis bu bëri pour ñëwaat pour yàq loolu jëmalewul réew kanam ku ñu fekk nga sanc foo war sa sanc nañ la dalal ticket bu cinq waaye fee yi ñu ciy jëriñ d'accord kon yow waaw yow loo ko revoir en tant que ko revoir di ko dénoncé ci ma ko a. Hmm. oui saa mooy wëy man wëyu ma ay raas kii nangam nangam am na yoo xam ne dañuy saadal it war nga war a pour l'avenir futur pour bon nit di bàyyi xel pour tamit sonjaate pour tamit xam nga digalaate mais am na yoo xam ne ne waruñu ko sax wane ci télé pour man musique dafa war a am carton jaune carton rouge carton vert am na woy boo xam ne boo ko woyee dañ la war a rouge waratoo gën a woy ci Sénégal xam nga waaw comme ay na bagage bi waaw ma gis naa ko wax yaa woy reeloo mbalax quoi comme xam nga genre genre. mën nga ko woy sax ci tubaab mais am na woy yoo xam ne warul kii parce que xale yi suñu doole suñu wéy la ñuy jàngee wax te fii Sénégal dañoo bëgg musique diggante musique rajo yi suuf xale yi loolu la ñuy déglu ci lañuy ñuy jàngee wax mais yow booy jàngee wax di jàng na bagage yi dugg boo màggee foo jëm am na ñoo xam ne xaalis warul tax dañ leen war a sanctionner nga wéy benn wéy ñu defal la zone wala vaar na la jox la avertissement wéy bu mel ni nag boo ko fi wéyaatee. comme ki borom moom quatre non kooku moom vraiment du quoi kooku daa mel ni bàyyiwul ay parents këram parce que am na loo xam ne boo toogee ci di ko wéy war nga xalaat sa yaay ba lay déglu say maam say dëkkandoo. pour man artiste dañ ko parce que tey jii nii bëri naa ko morom mais yàlla bu ma demee ba jox ma pouvoir ma téye micro mën ci wax àdduna di ko dégg. donc war naa xoolaat baax li may wax waaw man pour man bon loolu laay tudd moo tax lépp lu ma wax naa ko saytu xalaat ko bu baax daal. vraiment yéen moom amuñu seen fay quoi parce que vraiment biir digital moom xam nga mais ñëpp war nañ ko xam parce que bii mooy bon bon maa ngi gis seen liggéey temps yi ñëwoon ngeen ci ci affaire bon yenn yeneen affaire tey tamit ñëwaat ngeen ci di ñu gën a yokk jom di ñu gën a encouragé. bon amee ñaan daal mu tale bi jëm kanam yàlla na gën a màgg na jëm kanam seen njort daal yàlla ko yàlla dogal waaw waaw da ngay jàng ba def sa tees yeexa fast food ngay mujj doon ndax liggéey dañ ko fi ko fi doon raxas dootu fi seet jigéen ñi dañoo posé wee mais yu màgget di poose xeeb moo tax tata du fi fees Tuuba ñu yokk paas Mbàkke ñu tooji kaas kenn du fa kaas kenn du fa kaas fu neex waay samp mbaar fu neex waay dóore waar lu ci sunu réew